mbokki téléspectateur yu M-Média TV ñi ngi am mbégte ak kontaante bu baax di leen nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam eh, di leen jaajëfal également ci topp bi ngeen ñuy topp voilà comme ni ngeen ko gisee tay ñu ngi fi ci grande mosquée bu tiamen wara amal li nga xamne modi la prière de l'Aïdul Kabir ma appelé Tabaski comme ni ngeen ko gisee ñu ngi fi euh, ci grande mosquée bi di xaarani li nga xamne modi fidèle yi ñew ñu accomplir li nga xamne modi di prière bi prière bi jekk li ci mëna japp ki di euh, imam ratib imamul akbar mam Ousmane Si. mo wara jité li nga xamne modi di euh, julli gi également aussi tamit dinañ fi sentu ki nga xamne modi di la présence du premier magistrat de la ville en l'occurrence monsieur Assane Top ak yenen fidèle gor jigen mag ak ndaw yëpp assister li nga xamne modi julli gi euh niñu ko mëna waxé nak julli gi ren dafa tomber ci ben contexte muy euh, Covid 19 ko xamné mo lembé aduna di ñaan yalla aussi timit euh, yalla teggil ñuko ci lu gaaw gaaw gaaw kon mbokk yi rek euh, bu ko défé dañuy xaarandi li nga xamné modi fidèle ñu ñëw and ak ñom accomplir li nga xamné modi julli gi lepp ci and ak ki nga xamné modi chaîne M-Media TV comme ni ñu leen koy waxé toujours dans le but de vous servir donc mbokk yi bu ko defee ngeen xaarandi d'un moment à l'autre ñu assister li nga xamné modi julli gi au moment où je vous parle imam mi ngi ni di dugg ci l'imam ratib l'imam imamul akbar maam Ousmane Sy war a assister li nga xam ne moo di euh, jullik euh, euh, tabaski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 sallam ñi ngi sant yàlla ñu ngi màggal yàlla dëgg-dëggi màggal yàlla mi nga xam ne mi mooy boroom a sama suuf yàlla mi nga xam ne mi moom mooy aji màgg ji nga xam ne kenn mënu koo nirelee kenn wala kenn mënu koo dendalee kenn lu jaam màgg-màgg boo ko dendalee màgg yàlla gi dangay gis na jaam bi dafay torox ci wàllam waaye yàlla mi nga xam ne mi moom moo màgg tamatale màggam moom mooy yeyoo cant cantu lemiñ waaye moo yenoo cant xol itam képp koo xam ne ki danga moom yaa ngi maa ngi toroxlu ci yàlla di ko wéetal ci melo ak ci jëmm wéetalu ki nga xam ne kii amul ndend amul kem yàlla mi nga xam ne mi moo ëpp ñi nga xam ne ñoo koy melal ci lemmiñ seen nañ koy melale du ñu àgg ci melow yàlla dëgg-dëgg ñiy xalaat itam ci yàlla naka la war a mele itam ñooñe mënuñoo xalaat mukk ba jot dëgg-dëgg yàlla ñuy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne mi bi ko yàlla tànnalooxee mu dund ci àdduna dund gu neex dund gu yàgg wala mu dund dund gu naqari gu gàtt nee na mu tànn dund gu naqari gu gàtt ngir namm boroomam tabaraka wa taala ci dëppoog moom nee na maa ngi sant yàlla di ko màggal fii ak ñii iitu ñi nga xam ne ñooy fiitu di jullit ñi ngi nekk at mu jot ñu ñëw di feetu aat ak ñi nga xam ne ñi ñooy ñoy julit yi nga xamne ne yi ñooy yor seeni yere yu rafet sen sen sen sen yere yu rafet pour mana teru sen borom ngir jéggalam gu maggi ci bis bu tedd bi gannaaw loolu yeen bëkk julit yi ñi ngi yeen di denk di denk sunu bop ñu bëssal suñu ngëm ci bépp jamono ak bépp waxtu ndax ngëm lu bëssal la nit ki danay dugg ci diine di dem ndekk yoo fekk ngëmam rocceeku na bu yàgg kon nag foo toll fu ne war ngay yërënteeg sa xol di beesalaat sa ngëm sa digganteeg sa borom ci waxtu bu nekk ngeen ngeen di mën a wéralit seeni yéene la jëkk ngeen di dugg ci jaamu yàlla ndax gépp jaamu goo xam ne gii yéene dugg ca ju sell yàlla nee na soxlawul jaamu googa nee na mi ngi leen di moytuloo gannaaw ba ñu moytuloo sunu bopp ngeen di nóor ci ay moy bari na loo xam ne lii yàqu na bari na ñoo xam ne ñi xalaku nañ ci may lañ xalakoo comme ni ñu xoolee jamono jum jamono ji ñu toll tey jii te mooy li koy waral mooy topp sa bànneex topp sa bànneex rek xamoo wañeeku xamoo fooyam wala loola neex-neex sa bànneex rek loola ca nga yooyu te loola li koy indi topp sa bànneex mooy gis ñellu seytaane topp ko wala sa xel jàpp ne lii du wéy lii du dëgg lii da sa bakkan a ko topp waaye nekkul li dëppag li neex yàlla déedéet da nga cay noonu rek loola moo lay indil ba réeral la ba yóbbu la ci foo xam ne si bëggoo fa wane dal te mooy li nga xam ne moom ngeen di def ak li nga xam ne moo jàll ba noppi te kan xamut lan la mooy jëf yi nga xam ni moom ko jëf malaayika yi yàlla boole yow ñu bind ko ba yóbbu ko ba noppi mu di la xaar ñu di ko attee yow te xamoo noona nan la demee kon kenn ku ci nekk war na tey balaa jëf-jëf mu seetaat ko bu baax a baax a baax ndax jëpp jëf joo xam ne ji làmbuwul ak ragal yàlla yàlla neen du ko nangu waaw lu jëf rëy rëy rëy rëy lu mu baax baax baax bu fekkee da dara làmbuwut ki koy def di nekk ku ragal yàlla yàlla nee na aw ma soxla ci jëf jooja ba tabaski yi nga xam ne moom la ñuy def tey jii ci la ñuy rendi xar yi ci la ñuy loj nag yi ci la ñuy maam def lu ne waaye lu ci dëppoowut ak ragal yàlla rek yàlla nee na loolu soxla wu ma ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne yàlla kat mi ngi nekk yéen ngeen di jaam di ko jaamu kon yéen mbokk jullit yi nee na yàlla tabaraka wa taala moo farataal ci yéen ci weer wi jaamu yàlla comme ni mu ko farataale ci yeneen weer yi farataale ko moom ci yeneen bés yeeg yeneen jamono yi kon ngeen bàyyi ko xel bu baax nee na ngeen jooxal ko ndax bu ngeen ko jooxalee na mu yàlla ca la leen di musali ci sawara ca la leen di tàbbali aljana nee yàlla wàcce na ci yéen weer wii di weer wu tedd weer woo xam ne mii sunnaal nañu ci bari koor mo ci ëpp njariñ gannaaw weeru koor ak taxaw guddi di julli ndax ci bés bi ci fukki am na ci fukki fan yoo xam ni yàlla géñ na ci ngir màggaayu weer wi fukki fan ci biir yooyu ci biir weer wi la yàlla lu bare bari ci yonent yi ndax yonent yàlla Muusa ci la ko musale ci ngir bani Israila ci la ko wàcceeloon téereem tawreet yonent Ibrahim mi nga xam ne mooy boroom bi moom ci la ko joxe woon cëram ba nga xam ne bi ba muy dem di bëgg a rendi doom ja mooy Ismaïl comme ni ko borom xam-xam yi siiwee nettali ci bis bi lañu ko musale woon ci bis bi it la yàlla wàccee woon aaya bi ñuy wax al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'amati wa raditu lakum al islaama diina muy bés boo xam ne bés bu màgg la nee na yàlla am na ci cant cantu làmmiñ gu matale waaye am na cantu xol gu mat ngeen rafetal seen jëf ndax képp koo xam ne kii rafetal na ci jëfam yàlla dana ko fay jëf ju rafet al jasaawul ihsaan hal jasaawul ihsaan illa al ihsaan nee na bés bi am na ci maanaam fukki fan yi bi ci biir am na ci bés boo xam ne ko woor moom moom lañ tuddee yowma arafa am na ñu koy woor lu mel ni ki bésab démb bi nee na benn bés boobu boo ko wooree yàlla dana la jéggal bàkkaarab bàkkaarab ñaari at defi bàkkaar ñaari at ba ñaari at yi mat nga woor benn bés bi yàlla jéggal la ñaari bàkkaar yooyu jéggal la mbooleem bàkkaar yooyu ci sababu bés boobu nga xam ne moom su dee yow ma dafa am benn bés boo xam ne dafa am yahud boo xam ne dafa ñëw dajeeg Amar ibn al-Khattab bi moom ba noppi ne ko yaa Omar mu ne ko ah mu ne ah yéen seen alquran ji am na ci aaya boo xam ne génn na bob day bu fekkonte ne nun ci yahud la nun daañ koy feetal at mu jot Omar ne ko dina encore ban aaya mu ne ko al yawma akmaltu lakum diinakum xoola koo ko yahud jàng alquran bi ba mokkal ko ba firi ko ba dégg ko ba xool maam li nga xam ne moom la ca yàlla wax mu di ko dëxal ba di ko xeemeem ba ne bu doonte ne ñoom ñoom dana ñu koy jaam te nuñ koo ca dugal ñun ñëpp kenn xamu ci ci tawree dara xamul leen maam lu leen sant xamul leen danga encore lu leen tere foofu kon jullit yi war nañoo sonni alquran bu baax a baax xam li mu bind ñu topp ko waaye ne na Omar ibn Khattab ne ko xam naa aaya bi xam naa kañ la wàcc kañ fan la wàcc aaya bi mi ngi wàcc ci arafa mu ngi wàcc bésab ajjuma comme ni ki tey jii kon moo di ne bés boobu moo baamu at fii kon yéen mbokk yi na ngeen xamne kon ayit bi nga xamne bi mom lañ tuddee ayitu tabaski mo gëna mag ci ñaari ayit yi moy ayitu korite ak ayitu tabaski waye ayitu tabaski gëna mag neena mom ci la yonenti bi waxe won yi muy bëggalim neena wa inna dimaakum wa amwaalakum wa aradakum alaykum haramun ka hurmati yawmikum ayla neena inna dimaakum naka seeni deret li bari ci léegi ñi di koy faral di tour suñu ci deret renditi bi daggi loxo yeeg toj yuur yeeg ah, ah, ndogaan ni ñeeg lenn lu ne tey ji gis nañ ne siiw nañ te yonent bi te moom ca arafa la waxoon na ngeen ko moytu seeni alal ngeen moytoon ko léegi amatul loo moom ak loo moomul loo jeeg fab lu ne la fa lu ne la ba ma fi nga ba nga fab ko lu ne la fab ma nga fab ko te leen ci ak seeni der léegi tabarakallah gis nañu portable yi gis nañ youtube yi liñ cey gis gis nañu liñ cey gis kenn ku nekk yaa nga dal ci sa deru moroom kilifa gor yaag nit yàlla yaa kenn xàmmeetu leen a kàccoor yeeg yeneen yi comme neex rek nga wax loola neex daa ci mujj dara te yàlla nee na bisa ngi ñëw moom la yonent bi wax danaa toog ngeen toog kenn ku ci nekk la mu wax ak la mu commentaire fa mu ko jëlee maam moom moom yàlla ñoo attante waaw da ngeen daje rabbakum yawman liyas alakum amma te teji wax ji wax rëy na yow fagrul loole Seex al Hajji Abdul si waxoon ji wax reyna yo fagarul kon nak nañu fagaru xamne fuñu gëna jëm ñi a dajante ak ngi suñu borom tabarak wa taala lépp luñu jëf wala ñu diko wax wala keneen diko ñu diko dëggal wala ñu diko di ko da na dajje ak yàlla kenn ku ci nek te boba do gis ndey do gis bay do gis serigne do gis keneen luma yàlla rek sa jëf jojje rek mo la fay àtte moo tax mu ne la tarji'u ba'di kuffar delu gannaaw di yéefar mo ne julli la ba noppi lu la neex nga def lu la neex nga wax lu la neex nga am seetoo kenn loolu mooy dellu ne julli laa ba noppi nga dellu ci yéefar yal si yàlla musal waaw yadrib baadum riqaba baad léegi fi mu ne lu waay jekku ci moroomam rek fi mu nekk nii féf ko nee na bés la boo xam ne bii lu mel ni bésab tey bii dafa tedd bés la boo xam ne bii yàlla day génn bu génnee ñëpp a koy siyaare ku yëg ak yugut yaa ngi siyaare yàllaa ngi suñu kanam ci ñi nga xam ne ñooy ahlu sufla ak ñooy ahlul ahl ak ñi nga xam ne ñoo ne ci bàmmeel yi ñépp tey jii yàlla danga nga maam ubbi na leen ku doon mbugal ak ku nekk lépp yàlla da nga maam génne na la nga dajanteeg yàlla indi malaayika yi malaayika yi taxaw ci nga moom ko ci kanam tabaraka wa taala ñu gis yàlla njëggal gi nga xam ne gi moom la jagleel jaam yi njëggal gi mooy lan nee na ay junni junni la yàlla seet ci mujrimiin yi nga xam ne dina encore ñoom ay kàccoor lañu tey mu génne ko jéggal leen ngir màggaayu bés bi ak wan leen dina encore man buur bu baax tey bëgg naa julli kon bés bi suñu bés la bu noppee ko nun tam buñ ko yàq ci ay fo wala ñu yàqu da nga koon ci bayil gone yi da nga koon ñu di ko bu mbaayee ñu naan gone leen gone leen te fekk yoo déedéet lu ñu ci def bu ëllëgee te te defal ko su euh, seetaan xale yi ñu def ko bu ëllëgee nun ñoo koy att ndax ñu seeni kilifa ñoom la yàlla da ko at ci ñun ñu war leen a taxaw nee na sarxe tey ci bés bii tuyaaba sarxe tey ci bés bii di bésëb bésëb bésëb ayit bésëb tabaski mom neena mo upp ëpp solo moo ëpp njariñ mo upp tiyaba juróom-ñaar fukki sarax ben sarax fi nga sarxe ko ci bir ci bésu it ci bésu tabaski mo upp tiyaba juróom-ñaar fukki sarax yo xam nekkul ci bésu tay bi kon sarax baana torop ndax yàlla mom am la soob mooy fulandil jam du ko soob nee ba tay itam nga sarxe nga sarxe ci bésu korite julli ca neena nga nga nga rend ci bésu tabaski julli si moo gën moo gën it nga goreel si jaam ndax moom sunna la sunna la soo xam ne si yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko def sunna mu akkade sunna mu akkade mooy loo xam ne yonent bi moo ko waxta doog ci nga xam ne bu farata toppee rek mooy sës nee na su ko defee itam li nga xam ne moom la ñu génne muy sa xar nga xam ne moom nga war a tabaskee tey ji da nga jékk ba imaam julli ba pare rendi bu noppee nag la gën mooy kenn ku ne rendil boppam tabaskeem bu ko mënut nga wut ku la fa wutu rek waaye ka la fay wuutu nag nga teewee ko rek boo ko mënee bu ko defee nag la nga cay la ko cay jox moom bu ko ca jox loo xam ne da nga koy fayee déedéet man koo jox rek ngir teraanga lu mel ni boucher boo xam ne bii da kon ma lay rendil ma ngi lay feesal ma ngi lay boo noppee rek dindi ci jox dara bu fekkee da ngeen waxante fay moom da koy fay ci leneen waaw nee na sopp nañ ci gannaaw boo xam ne bii julli nañu li ko dalee ci tusbaaru tey bii ba baa ngay dem ca tusbaaru set ñeenteel ba ci ca suba ga julli goo julli gannaaw farata rek nga kabar doonte ñetti kabar la waaw sopp nañ ba tey itam nga jokk ak bokk sopp nañ nga dimbale way ñàkk nañu dimbale way ñàkk yi ñu ñàkk a ngi fi ñoo xam ne ñii fi ñu toll nii maanaam maanaam corona bi dafa yokk seen i mbir waaye fekkoon na leen ñu sonn te ñi nga xam ne ñoo leen doon mën a dimbale ba léegi am na ci ñu mën na leen a dimbale am na ñoo xam nañ amuñ reer amuñ ndékki amuñ leen da nga gis nag koo xam ne ki feesal ne mel pam ngiraan defe ne di nga maam kenn fandewut fekk ku dipi dipi bu yàgg ba di nga ko lékku tërus na wax si boomul jaayiloo ax ya yaa mi day am kersa dem ci keneen waaye kenn ku ne war nay nemmeeku sa moroomam jullit xool fa nga ko jàppale ñi rafle nañu ñenn ñi feebar nañ amul lu leen faj ñenn ñi lottu nañu ñenn ñi tabarakallahu nañu bàyyi xel di jirim yi nga xam ne seeni way jur nekkatu fi amuñ ku leen dimbali nee na itam ñuy ragal yàlla ci bokk ñu sàmm bokk gi ndax bokk yàlla nee na ëllëg si fu ngeen toll rek maa ngi leen di contrôler ci seen ak bokk ba xam yéen a ngi doxal yéen a ngi koy rafetal ndax nee na ki nga mooy dog bokk ñaar ñii nee na duñ gis xet ak aljana ki nga xam ne day day day yëjji ñaari way juram xameetu sa wajur boo waxee rek nee na kon mu féf la ma nga téye portable bi du la faale sax ma nga nekk ci leneen ak leneen loo ko sant fi mu nekk nii mu demee lu wuteeg la woon loola kon way jur yi nañu góorgóorlu ci xale yi bala ñoo màgg ba di leen të pour ëllëg ci biir ñuy dugg ci biir alkade yi ci diggante xuwan fusakum wa alhikum naara foofu nga koy mën a seete nga mën koo mën a fegal sawara wa nga xam ne yi mooy ñëw waaye boo jékkee kat mu topp ca loola bay kàllafe ca wéy ca ëllëg ci biir mu jàkkaaloo yàlla bu boobaa wuy man ak yàlla yërëm ko yàlla yërëm ma déedéet yéen ñaar ñëpp yene yene yor bàkkaar bi yàlla nee na ngeen di ngeen di joxe ci li ngeen yor ndax li ngeen yore moom boo joxewut day jeex nga ba fi rek te boo ko fi bayee itam xamoo da nga maam lu koy mujje léeg-léeg nit ko jël sax may may ci yàlla te la ne fa yàlla moom du jeex te boo joxee benn mu fay la fukk dama dema dem ba téeméer dama dem ba macha allah yonent bi sallallahu alayhi wa nee na nag bés bi di bésab ayit at at xaal mubarak muy bésu tabaski liñ daan def nee na wax ko saaba yi ngeen def ko mu ne buñ daan ñëw dañ daan ñëw julli comme ni ñu nekk buñ jullee ba nopp ñu loj buñ jullee ba nopp ku am lay lak nga lak lu melni ni wala lu melni ni kii tabarakala giléem ndax fofa lola fi gënoon ndax miskin ya ku am loy rendi nga rendi neena na yonent bi neena ku def lolu deppele nga jot nga sunu sunna lañ cey def ak lañ cey yakar jot nga ko nee na ko koo xam jël nga sam tabaski rendi ko ci sa teeyu bakkan mu lew nga def ko ngir yalla bañ ko poukere wo neena bu boba tabaski ma dana dox sa digganteeg sawara bu ëllëgee boo jéggi siraat moom ngay war mu mel ni xafa xippi nga jaaree fa dugg aljanna yàlla nu si yàlla boole subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتقدرنا جميع الحاجات وترفع لنا عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والرضا والتيسير وتغلق بها عناب والشر والتقى والتعسير وتكون لنا بها وليا والنسير أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم الناصر الفاتحة أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على yal na yàlla بارك mbooloo mi yal na yàlla barkeelal mbooloo mi yal na yàlla saafara jàngoro yi yal na yàlla teggi tiis yi yal na yal na yàlla defal nu atum jàmm yal na yàlla jéggal yal na yàlla yomb nu yiw yal na yàlla musal seytaane musiba ak balaa yàlla yàlla fa jàmm barkeel bi jaay nam sa defaral nu réew mi lépp defal la bopp julli gi téléspectateurs yu média TV comme ñu ne leen ko waxee ñu ngi fii ci grande mosquée bu Thiamène amal li nga xam ne moo di euh, jullik tabaski gi ñu ngi ak euh, imam ratib imamul akbar maam Ousmane Sy ñu bëggoon a euh, laaj quelque kaddu rek naka nga gisee julli waaw ñu ngi sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli gi alhamdulilah dañu sant yàlla ndax ah, mbir xew-xew bi xewul yaakaaroon na tax ñu defe ne nit ñi duñu ñëw wala duñ meli nii waaye seen ñëw ak seen discipline ak seen respecté li nga xam ne mooy barrage yëpp ah, gis naa ko ci biir tabarakallahu julli gi itam ah niñ ko waxtaanee ci li nga xam ne dinañ ko moom la ñu moom la ñi nga xam ne ñoo doon def discours avant imam di ñëw ñoo ñooñu seen discours bi dafa matale lu bëree bëree bëri gannaaw bi nga xam ne bi jóge na ca it imaam yàggalul discours am ndax sàmmonteeg temps bi nga xam ne bi moo xew ndax waxtu nawet bi ñu nekk en même itam ajjuma la dañuy dellu si te itam gis na ne julli tabaski bokkul ak julli gi nga xam ne gi mooy julli euh, euh, korité kon ay yeneen i liggéey ak yeneen a ngi fi ne loolu tax ñu résumé ko rek seet li nga xam ne mooy licencié yi def ko ci waaye nag ci biir licencié lépp nag ñu seet actualité yi nga xam ni moo xew ci jamono ndax gis nañu wàllu wàllu wàllu ñàkk ak ñàkk ndimbal ak ñàkk dimbalante gi nga xam ne gii moo nekk te fekk loola euh, gënut ci ñun loola nekk na loo xam ne lii buñ ko buñ ko bàyyiwul xel jàppalante ko dana gis ñoo xam ne danañ loru façon boo xam ne bii di maam nit ñi duñ ko béy li waral jullit yi ñooy ñu seetaat seen i dëkkandoo seet seen bokk seen ñàkk ñu mën leen a jàppale loolu ci la maam àndandoo bennoo war a gën a mën a nekk gannaaw loolu itam gis nañu itam ne maanaam maanaam euh, li xew ci réew mi te bari lool di war a warta nekk jikko jullit war nañ koo bàyyi ndax mooy diggante euh, tuur deretu jàmbur mooy diggante xas nit mooy diggante ŋàññi nit ñu baax ñi mooy diggante ba tey itam sàcc alalu nit wala jël ko ci lu dul yoon yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne yonent bi waxoon na ko te lu dansé la ci wàllu julit te képp koo xam ne ki ñu ngi lay yaakaar nga nekk julit da ngaa war a mën a yëwanal lu mel noonu waaye waru nekk di koo xam ne kii ku la fekk lu mel noonu ngay def ndax julit tur julit dafa nekk tur boo xam ne bi tur bu sell la bi ci des itam moo di ne jaajjaat nañ leen ci ne yàlla wax nañ ne de bëri na ñoo xam ne danañu danañu ñëw di puukaréew di di jaamu yàlla sax waaye fekk puukaréew lañ ci loola mooy wane ne seen xol jaamuwul yàlla mais seen jëmay jaamu yàlla da encore ak seen jamono te loola yàlla nee na loola amu soxla ndax man looy def naa tax tey na nga ko defee ragal yàlla te en même temps itam na sell na mat itam yooyu yëpp nag war ci nun suñu bopp ñu si li ñu fiy déglu ak li ñu fiy teew si pour ñu man cee gis lu ñu mën a jariñoo loo xam ne li ku ci nekkutoon ci yoon wala nekkut li yàlla santaani mu mën koo ma man koo ma mën koo bàyyi dem ci lu yàlla dem euh, digle euh, jéglu ay bàkkaar mën a jóg itam mën a yërëmante mën a dox ak bokk mën a seet diggante yoo xam ne yii en même temps itam dafa xàjjali ko woon nga mel leen maam jëwanal ci euh, bésub eet bi tey nga gis ne itam jokk ci bokk lu am solo waaye itam dimbale way ñàkk ñu am solo waaye ñu gis itam ne maanaam jirim yi nga xam ne moom la ñu gis di leen xeeb tañ leen waroon a jàppale ci wàllu jàng war nañu jàpp ci wàllu dund war nañu jàpp ci wàllu taxawaay yooyu yëpp gis nañ ne manqué nañ te itam fii la ñuy jële fii ci mbooloo mi daje buñ déglee ne jullit maanaam jirim war nañ koo mën a jàppale war nañ ko mën a taxaw bu boobaa danañ mën a bàyyi xel loolu ñi nga xam ne ñooy sarxe itam yore alal te duñ ci jote asaka nam war a defee xanaa dindi cee joxe tuuti te joxuñu asaka nañ ko war a defee en tant que jullit asaka ponk la boo xam ne bii mi ngi nekk ci islam kon war nañoo fàttaliku nit ñi ñuy joxe asaka kom na mu ware tey di ko joxe rek ngir yàlla xam ne yàllaa ko moom bi ci des itam ah euh, ñaanal nañu réew mi ñaanal nañu réew mi ñaanal nañ boroom réew mi ñaan nañu it li nga xam ne lii mooy mbas mi yàlla jëlee ko fi ci jàmm ndax yàlla rek moo ko mën a jëlee ah, wax nañ ba te itam ne li tax mbas mi nun ñëpp kenn ku ci nekk sa xel dafa dañ ne maanaam nit ñi dañoo sàmm seen ak mooy yàlla moo bari seen moyog yàlla moom topp seen bakkan moom la topp seen bakkan maanaam jaar ci saytaane da nga man ko te ñeekuut moom la nekk kon nag loolu bu fekkente ne mi ngi nekk nun war nañoo jàjji kon ñu dellu baax dellu si yàlla xamul maanaam maanaam sartanti wuñu ak yàlla ci ne bu fekkente ne bàyyi nañu lii ñu def dananu dananu dananu dananu jéggal waaye yàlla ci boppam tabaraka wa taala moom ku tuub mu jéggal la kon ci loolu la ñuy ñaan nun ñëpp ñu tuub yàlla yàlla nangul nu yàlla defal nu jàmm defal nu atu jàmm defal nu nawetu jàmm defal nu sutura dafa wér sàmm nu sàmm mag ñi sàmm xale yi nga xam ne itam ñooy jóg di mu ngi ko di taxaw taxawee jumaa jeeg li ci nekk ak yoo xam ne yi dafay doxal réew yooyu day doxal dëkk bi nekk exemple boo xam ne mag ñi lottoo nañ ci bu jëkk waaye ñoom ñi xam-xam ak seen wàllu activité taxawaay yu rëy yi tabaarakallaa di sant itam tabaarakallaa ku mel ni oustaz Mor mii ndax moom itam gis nañu taxawaayam jamono bi mi def jàkka ji gis nañu waxtaan yi itam ni muy def ak ñeneen ñi nga xam ne ñooy def bayaan ci biir jàkka ji ñoom ñëpp kenn ku ci nekk actualité yi nga xam ne moom lay def rafetlu nañu ko te gis nañu mi ngi soppi di nga ci société bi loo xam ne lii lii yéen itam yéen waa rajo bi xam rajo boobu la ñu ko créé waaye moom itam ñi ngi taxaw jamono bi ñuy bëgg a woor ak ba ñu julleeg lu tax julleeg lu tax duñ mën a julleeg loolu lépp booba amoon nañ ci luñ kàddu yuñ ci jàlle woon ba tey itam nag ñi ngi ci ànd ak di ñaan yàlla dëgëral leen yàlla defal leen jàmm defal baraka ba ci yéene yàlla defal nu ko yàlla defal nu sàkku ci yéen ñaan itam nag sama yaram sama itteeg sama taxawaay responsabilité yi nga xam ne moom lañ ma wax yëpp beeg muy coronavirus. vraiment ñu ngi jégalu di ñaan yàlla yal nañ julli yëpp ñu fekk ko ak jàmm te vraiment distanciation yi respecté nañ ko vraiment julli gi rafetlu nañ ko yàlla na ko yàlla defal jàmm feebar bi am na waaye nag ñu ngi ciy jël suñu ay responsabilité yi xam ne vraiment gis nañ ne daal vraiment julli gi jaar na ci yoon ah loolu la yàlla dogal ci daje vendredi waaye wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax di ñaan yàlla yàlla nañ ko julli ay déwéni déwén yàlla dogalit moo vraiment ñëpp ñëw nañu respecté nañu aussi distanciation bi ak masque yi vraiment daal macha allah yàlla nañ ko fekkee te tal ko déwén liñ mënoon liñ moon ren yàlla nañ ko woon déwén bon di leen sant di leen gërëm di ñaanal waa Média yi yàlla defal leen jàmm yàlla saxal leen fi te gis naa ni ñu jërë jàppaleel la ngeen te jël nañ ci ay responsabilité xëy na am na ni mu demee woon tuuti waaye ñun danañ ci jël ay responsabilité parce que ci ngeen génne ngeen génne information yi nga xamné ne am ci càmmeen surtout nak ibisu euh, idi bi ci tabaski ngeen ñëw bon couvrir affaire bi vraiment ñu leen di sant di leen gërëm di ñaan yalla yalla leen yalla doli jam yeen wa media TV voilà beneen question bi mm, euh, ci gàttal tuuti rek gis nañ ne imam ci xutba bi euh, souligné li nga xam ne moo di wàllu solidarité wàllu également ci li nga xam ne moo di crise de valeurs yi yàqu-yàqu jikko yi ak solidarité bi ñu jàppalante dimbalante su ci sa xalaat sama xalaat mooy comme li ko sëriñ bi waxee rek parce que dimbalante fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi ku ci nekk fa nga nekk koo ci koo tane na ko dimbale muy social bi beneen bi mooy toll nañ moo boo xam ne crise la ñu nekk bo xamné vraiment metti na mais gis nañ ni amna ay bonne volonté yo xamné ñi ngi jàppale askan wi xeyna amna lo xamné loo ko wax amna lo xamné xam duñu ko wax mais japp nañ ni bu dee quatre cent yi satisfaction bobu am nañ ko parce que gis nañ ni dëkk bi am nañu baax ñoo xamné ñi ñu ngi dimbale nit ñi ci walu social donc vraiment rafetlu nañ xutbaam te lool rek mom moy actualité benen bi jikko yu yàq yi ci xalé yi aussi nañ ci bayyi xel ku ci nag respectel say say kilifa respecte say waajur parce que tey lépp looy am say waajur ñoo la koy may beneen bi mooy comporté comportement boo xam ne ku la gis dana xam ne kii tey ay waajuram yar nañ ko jikko yooyu nag nañ ci bàyyi xel beneen bi mooy problème mu problème mu problème mu whatsapp yu demee noonu nañuy bàyyi xel yooyu te sóoraale loolu mooy yàq jikko yi ba nga xam ne ñu ngi ciy concentré wu comme ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko imam bi waxee day dem ba jikko yëpp ñooy yàq ci côté communication parce que tubaab yi loolu la ñu gëm loolu la ñu bëgg a dugal suñu bopp ñun nag ñooy bañ loolu pour bañ a changer suñu suñu comportement ci l'islam

Haji Ousmane ñu ngi lay nuyu di la fay di jaar ci yow di nuyu waa TV di leen ndokkeel tamit ndax lii moom vraiment surprise bu neex la ak ñun euh, ndax démb laay suivre waxtaan yi nga xam ne mbokk yi ñu ngi koy def te loo ko ci tabaski bi te loolu am solo la loolu la kon ñu ngi leen ci bu baax a baax di ñaan yàlla def ci ndam yàlla barkeel ndax yéen li maam Cheikh doon wax naan journaliste bu xamee bopam. Euh, rôle yonent lay joué ndax fexe ba kàddu yiw fu mu war mënuloon àgg ngeen àggale ko fa yaakaar naa ne loolu weesuwul rôle yeneent yi ndax ñoom seen rôle mooy at tablir mooy fexe ba jotal message bi nga xam ne moom leneen yàlla yi subhaanahu wa taala yónni kon yéen liggéey bu am solo ngeen def ngeen gën ko bàyyi xel gën ci am yitte comme ni ngeen ko amee te itamit fa tabaarakallah Euh, bu delloo nag ci laaj bi nga laaj ah moom ñun ñoo ko bokk teewe ndax occasion bi dafa nekk occasion bu yombul ndax li fiy daje bariwul muy daje ci yeneen événement ci dëkk bi rawatina ci dëkk bi te nitu yàlla moom comme dañu am rôle lu defar ñi ngi commencé ci nit ñi ñu am cadre bu ñu defaree moo tax yii ci cadre yi la bokk moo tax imaam yi di ko profito di ci profito di ci joxe message yoo xam ne mën naa ne ki ko dégg bu ci jariñoo mën naa fii ba déwén mën naa bañ a soxlawaat message bu koy bu koy delloo ci wàllu diine loolu moo tax nag ñu war ko bàyyi xel daal euh, bu ñu dégloo nag imaam fa tabaarakallah moom tënk na ko ci ni nga ko tudde léegi euh, résumé na xutba bi euh, wax na yi tamit l'essentiel yi nga xam ne lu bis bi ci wàllu jaamu yàlla ak historique bi fan la jógee mais surtout ni nga waxee liñ ci war a gën a jàpp nag te war ko jëfe mooy côté solidarité bi te loolu mooy côté sociale bi ndax jullit bi jaamu yàlla bu ñu yàlla sant rek dafa am ñaari aspect benn bi mooy yow mooy yiw bi nga war a def ci sa bopp sa diggante yàlla ak sa boroom sa vie spirituelle mais beneen aspect bi mooy bi nga war a bokk ak société bi te boobu la yàlla di xaar ndax yiw dafa war a nekk lu lu ñuy tuddee lu transitif dafa war a jóge ci yow dem ci keneen jaamu yàlla yi nag liy jóge ci ñun di dem ci ñeneen ci société bi nag loolu mooy yokk jaamu yàlla loolu moo tax daje bi ni ko tuddee loolu kenn ku nekk war na ci bàyyi xel ci wàllu yëg-yëg ci wàllu dimbalant ci wàllu solidarité ci bàyyante xel surtout ba ci context bi ak yi am yëpp ñu xam ne rek ah yàlla mooy doxal jamonoom mais daal boobu moom war nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax ndax wax naa ko léegi ci sama bi may fàttali mooy eh, xam bokk ci coow li xam li xew a ko gën te feet yu mel nii nag pour nga xam li xew dëgg dëgg dëgg mooy nga defaru mais itam ngay defare defare bi nag mooy li nga ciy jële comme yiw di ko transmettre ñi nga xam ne ñoom nga bokk ci wàllu yiw mu feeñ ci sa wàllu jëf ci sa wàllu liggéey loolu mooy tax jaamu yàlla yàlla naan ñu koor boo defee ni nga ko war a defee tabaski noonu diggante muy ñëwaat yàlla dal fiy jégal bépp bàkkaar boo fi def loolu déggin bu gàtt bi mooy yiw bi nga ciy jëlee moom ngay investir di ko réinvestir ci sa dund société soo delloo yow fa ngay liggéeyee ca mairie ba yiw bi nga jëlee fii moom ngay liggéeyee foofa man mii bu ma delloo fa may liggéey yiw bi maa ngi ci bis bi moom laay yóbbu keneen noonu cameraman bi noonu ku mu mën a doon noonu ba ci imam bi noonu ba ci soxna si ba ci ku mu a doon yiw bi nga jëlee ci bis bi mu nekk leer moom ngay yaatal yóbbu ko ci sa barabu liggéeyukaay fexe ba di yëg yàlla di xam yàlla di bàyyi xel yàlla ci lépp looy def taqwa di nekk sa xol loolu mooy objectif bis bi ndax comme wax na ne laallakum tattaquun kon taqwa boobu lu jar a bàyyi xel la li tukabbirullaha ala ma hadakum donc yooyu yëpp maanaam takbiraat yeeg rendi beeg julli beeg ayit beeg ziarante beeg yëpp mooy nañu bëgg rek bu ñu fi jógee ñu am yiw boo xam ne dañ koy dundalaat lool mooy tax mu mën a nekk kon mu kaffiraat li dunub ci diggante bi nga ko defee ren ba ba déwén di ñëwaat ndax yiw bi du jeex donc déggin boobu bu ko amee rek dafay daal di yomb bu baax a baax te bu woo tam yàlla impact jaamu yàlla yi ci société bi dafay daal di am solo ndax nit ki lu mu doy waar doy waar bu ñëwee fii rek dañuy fi jëlee yëg-yëg boo xam ne bu dellu.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 muy liggéey boo xam ne nag yomb na yombul ndax liggéey suñ borom la kenn ku ci nekk loo ci jëf sa bopp nga koy jëfal moo tax mu am ay bon volonté yoo xam ne wax dëgg yàlla depuis ñu ñu ñu nangu ko ci mag ñi ba léegi maanaam ñu aw ca mag ñi ndax mag ñi ñoo defoon jéego yu am solo tey dañuy wax ne euh, xale war na fexe ba fu juróom tegoon tànkam su demee ba lay tële mu ne ko indi kat ma ma aw la ci li nga yor bala ngay toxe lol mo taxone buñu démé ba gis né mag ñi kat wax rek yalla am seen taxawaay tax rafet na ñu tam di jël ko ci ñam bañ ko jëlee ci ñam ba légui nak wax dëgg yàlla yàllaa ngi troal mbokk yi nga xamné ñom lañ ko séxal ñu ci def taxaway yu am solo muy participation yi nga xamné dañ koy def individuellement nga xamné da nga yegg yëg rek is ben bon volonté ñëw yëkkati lu am solo def fi beneen bi ci dess itam bu ñu dajee ku melni bis bi naka tay mbokk yi dajé la fi ay participation yu am solo yenn ñi ñu ko ay barkel yo xamné dañ koy organiser nit ñi jënd ko ñenn ñi itam yëkk ci seen poos li leen yàlla may ñu def ko moo tax bi ñuy jël liggéey jumaa ji xëy na booba soriwul woon mais gannaaw biñ ci jotee nag ci lañ dem ba defar soroor yi raax biir gi biñ demee ba yooyu yëpp pare ñu karole gis na kat léegi bala ñuy peinture di ci dépense beneen xaalis bi te gis na jumaa ji day fees ñu nekkoon kon nañu fexe ba jigéen ñi am fu ñu jullee góor ñi ñu yokk mbaar yi mooy travaux yi nga xam ne moom ngeen fi gis waaye lépp mi ngi jóge rek ci jaamu yàlla yi ak seen i taxawaay loolu daal ci wàllu liggéey bi loolu la ngeen mën a wax su ko defee na bu amul beneen question ñu doy loolu loolu waaw gis nañ ne aussi tamit euh, ci contexte bi nga xam ne moom la ñu passé julli gi muy coronavirus. Mm-hmm. ak euh, xutba imaam li mu ci wax ci wàllu solidarité bi jëm ci wàllu ndimbalante. Mm-hmm. gis nañ ne naam am na ñooñu sonnoon nañ bi corona bi ñëwagul. mais corona bi dafa ñëw yokk gën a yokk seen coono imam wax aussi tamit ñooñu nañ ci gën a bàyyi xel gën leen a dimbal également wax na aussi ci li nga xam ne moo di euh, li nga xam ne moo di wàllu crise des valeurs yàqu-yàqu jikko yi lu jëm ci wàllu internet bi ñooy xale yi jëfandikoo di ci ŋàññante ak ay kilifa loolu aussi tamit lu ciy sa xalaat mm-hmm. waaw wax nga lu lu am solo ndax boo gisee ñun suñu liggéey sax xawoon na jafe tuuti bi ñu demee ba corona bi dugg si ba nga xam ne activité yu bëri dafa dafa arrêté woon biñ dé pour dooraat suñu liggéey xawonu ñu indi jafé jafal pour lan pour mëna fexé fexe nag ba respecté mesure euh, barrière yi nga xamné war nañ ko respecté pour itam sàmmante suñu wàllu walu wër gëram ndax ku na xamné né bala nga tal dara da nga wër loolu mo taxoon itam ñu def ci ay taxaw yu am solo bu mbokk yi dañuy teel a ñëw su jullu jotee dañuy teel a ñëw préparer euh, matériel yi nga xamné mom lañu wara soxla lu jëm ci walu sel bi ak yeneen yi nga xamné mom la wara andal pour mëna fexé ba li nga xamné jangoro ji li ñaan fegru mo gën faju al wiqaayatu xayru min al ilaaj loolu lañ doon jëfandikoo foofu ñu fexe ba daal respecté ko waaye boobu léegi nag yàlla ñu ci suturaal su ko defee beneen bi ci des imaam wax na ko muy ñu gën a góor en tant que ay responsable gën a góorgóorlu ci njaboot bi ndax ku ne xam na ne jamono yàqu na xale yi léegi comme ni mu koy waxee ci wàllu net bi ak yeneen ak yeneen yoo xam ne itam dañ ci am ndaw lu am doole mu di leen ci kii de mooy saytaane foofu lay jaare pour yàq ndaw yi yoon nag day day dafay jaadu ñun ñëpp kenn ku ci nekk mm-hmm. nga gën a dolliwaat sa taxawaay bu baax a baax pour mën a saytu sa njaboot mën leen a teg ci li nga xam ne moom mooy siraatul mustaqim ba liy fëkkaate du leen fëkk mm-hmm. su ko defee daal ñu ngi rafetlu imaam comme ni mu ko indee ndax wax dëgg yàlla mm-hmm. indi na ko ci jamono ji nga xam ne moom lañ ko soxla waaw kon du ñu def rek du lu ko bu baax a baax moom mooy sa war a tontu la ndax bu ngeen xoolee rek travaux yi fi mu toll nii da nga yëg ne li ñuy wax naan jumaa mu liggéey jumaa moom du yàgg ndax bi yàlla dogalee xëy na li nga xam ne mooy biir jumaa ji defar nañ ko ba macha allah karole man koo julli waaye ba tey néew julli ji nit ñi ci naaj yi li jullee ndax jumaa ji dafa xat booy xool ci ci dëkk bi moo tax ñu yokkaat ay ay yeneen i mbaar mbaar yooyu boo ko xoolee nag moo liggéey bu liggéey bu bari la des wax dëgg yàlla moo tax ñu ngi tàllaat suñu loxo askan bi yëpp ak bonne volonté yi képp koo xam ne yàlla ñor na la daal sa loxo ndax boo gisee ne mbaar bi ci gannaaw nga xam ne moom lañ parawaaral jigéen ñi boobu ngay mën a wax ne kuule moom moo ci des moom la ñu war a dolliwaat boobu itam wax du yaram dafa des liggéey bu bare baree bare bari di sant itam nag waa mairie bi ndax bi ñuy soxlaa luy toll 10 pour yokk ko ci bayal jumaa ji dañu ko yombalal wax dëgg yàlla ba miiré nañ ko ba jumaa gi léegi dogu na li ci des mooy di liggéey ci biir rek voilà mbokki téléspectateurs yu M-Media TV yéen ko gisandoo ni ñu leen ko waxe woon assisté li nga xam ne moo di euh, julli gi euh, muy euh, ni ñu koy waxee ci julli gi ni ñu leen ko waxee woon ci njëlbeen gi ànd nañ ci ak imam ratib maam Ousmane Sy également dégg ngeen li mu wax ci li nga xam ne moo di xutba bi jëmale jëmale li mu résumé jëmale ko ci li nga xam ne moo di xutba bi liñ ci mën a tënk rek mooy li nga xam ne mooy wàllum solidarité maanaam ndimbal gi nañuy dimbale li nga xam ne moo di wooy néew doole yi gis na nañu ci bëri seen néew ne coronavirus bi mu gën na leen a laal ñu ñu leen bàyyi xel bu baax également wax na aussi li nga xam ne moo di euh, wàllu euh, crise des valeurs euh, ci li nga xam ne moo di yàqu-yàqu jikko yi nga xam ne internet bi mu ngi koy def jëmale ko ci ndaw ñi ak yenn kilifa yi nga xam ne ñoom it ñu ngi koy utiliser di ŋàññ di loolu également imam wax na ci également aussi dégg ngeen réaction monsieur le maire moom it mi rafetlu kàddu yi rafetlu xutba bi nga xam ne imam def na ko également aussi tamit oustaz Mor Diop moom it euh, ba tey demul kenn demul mu des moom it euh, indi na xalaatam aussi tamit ci li nga xam ne moo di euh, xutba nga xam ne imaam def na ko kon lépp mu nekk benn point de vue ñoo xam ñoo ko gisandoo jëm ci wàllu li nga ne xutba bi imaam def na moom mi nga xam ne moo jiite li nga xam ne moo di travaux grande mosquée bi wax nañ depuis que ñoom ñu jëlee relais gis ngeen ko mbaar yi nga xam ne ñu ngi ko fi amal ak li nga xam ne moom la leen mairie bi offrir ci li ñu yokk jumaa ji pour que espace bi gën a également aussi timide ci loolu aussi timide mi ngi lancé autorité yi ak bonne volonté yi ñoom ñu gën a ñëw jàpp ci liggéey bi mm, également voilà kon mbokki téléspectateurs yu M-Média TV loolu lañ leen indiloon ci jullik tabaski gi fii ci grande mosquée bu Thiamène di leen jox rendez-vous ci kanam ci yeneen programme ak M-Média TV comme ni leen ko waxee toujours dans le but de vous servir ngeen continuer gën a abonné ci li nga xam ne YouTube bi Instagram bi ak li nga xam ne Facebook bi pour di ñu gën a suivre di leen jox rendez-vous incha allah ci kanam merci. وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا ربنا تقبل منا وعافنا